ak jëwriñ Yankoba muy jëwriñu fédération Touba Argentine bi nekk fii ci Amérique latin euh, jëwriñ ñu am mbégte ñëw ci euh, pose première pierre bi muy loo xam ne nii mbégte la ci bépp bépp murit mbégte ci bépp taalibe tey ñu am occasion dégtal la micro bi nga am ay leeral yoo war a def ci sëñ Mamor mi nga xam ne dégg jokkoo nga ak moom nga jot ci moom ndigal sëñ Abo tegal ñu première xeer bi lan ngay yëg jëwriñ euh, ginnaaw bi ñu sant suñu borom julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam di sant mboolem taalib yi fi yëpp ak yi fi teewul ak mboolem bàngaas boo xam ne aju na ci fédération bi ak mbokk jullit yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci réew mi ñoo ngi dotti ak cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee ak mbégte waaye amul fu mu yem loolu jàllee nag bis bi la ko waral tey ginnaaw bi fi sëriñ Abou Mbacke Baraka ñëwee yàlla dogal na ñu woo sëñ Maam Mor Mbacke mi nga xam ne yàlla dogal na liggéey yi nga xam ne féet na ci àll bi yëpp te waajuram wa yoroon ko muy sëñ Mouhamadou Mourtada ñu jot jokkoo ak moom nag ginnaaw bu mu amee woon yéene pour waroon ñëw def teg xeer yi yàlla dogal bi ñu jokkoo ak moom xam na ko ne suñu aboo de mi eh, ñu doon laaj ndigal bu dee eh, am nañ ci ndigal sëñ bi daal ñu mën a tegal xeer wi mën a tàmbali liggéey bi mu rafetlu ko lool xamal ma ne lu mu amoon yéene def si la waaye suñ abu moom bu fi dajee nag moom sax suñ abu moo ci xeer wi ngir ak aw melokaanam ak mbaaxam ñoom ñaar daal duñu ñu ñaar kenn lañ dégg ngeen yéen ñëpp sëñ sëñ Abo leeral ko fii daana maag moom kenn lañ du ñaar loolu mu seere ci man it moom sëñ Mamour moo ne ci li woon ci man moo ne ci moom ci moom la ne mu nekk diggante bu rafet boo xam ne ñun ñëpp cee roy xam ne ñu bokk rek ñuy ànd kon looloo waral tey sëñ Abo ñu tegal ñu xeer yu tey ñuy sant nag mbokki taale bi yëpp tey soññ ñëpp ci ñu taxaw ci liggéey bi lu mu gën a gaawee te ñu ñaan yàlla ñun ñëpp suñ borom dimbali nu ba màggal gi di ñëw ñu mën ko fi defee ci barke Serigne Touba fépp fu taalibe bi nekk daal soo amee tonne ciment te yéen ko defal Serigne Touba wala nga am loo dencoon te doon xaar lu leer lu leer am na c'est doomi Serigne Mouhamadou Fadal Serigne Fall la moo tegan xeeru jumaa ji ab xalifaam ñu ne tegal nu xeeru kër Serigne Touba ku ne wut lu leer yaakaar naa lu gën a leer loolu amatut kon nag yoon waa ngoog ayo murit ku am fukki tonne ciment ñëwal ku am tonne euh, fer ñëwal ku am camion suuf ñëwal ndigal laa ngeen jëf waaw ci kàddu yooyu la ñuy toftalee kàddu sëñ Talla Sall muy koo xam ne nii mu nekk ci wàllu uh, finance bi ci fédération bi sëñ ñu jox la nga sànni ci ay kàddu ci yéeg yëg bi nga am tey ci bis bi. Uh, alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf Serigne Touba ndax ñun moom mbokk yi wax dëgg yàlla suñu xol dafa sedd ba amatuñ lan ñu mën a wax ndax lii de mbégte mu kawe ci ñun ba wax dëgg yàlla li mu kawee foo ko takk rek maanaam fees weesu na ko suñu xol sedd na ba daal wax dëgg amatul lenn lu ñuy wax xanaa li ñuy wax nag mooy liggéey bi day doog a tàmbali day doog a nag mooy comme teg nañ xeer wi te dañ ci fas yéene jublu comme ni ko jolin waxee fas ci yéene màggal maanaam lépp loo xam ne waaye am na ko maanaam mu andi ko ndax li nekkoon li fi nekkoon ci xaalis lépp wax dëgg yàlla maanaam fi mu toll nii dañoo daal di bëgg rek xëpp ko ci moom daal di dawuti waat kon ñoo ngi déparaat di continuer di soññewaat mboolem mbokk yi nga xam ne doo nekk ci réew mi yëpp xamal leen di leen liggéey moom tàmm leen bis nekk tey woote bi tamit maanaam du day day day wéy di continuer rek kon daal ñoo ngi woo mboolem a nag suñu xol sedd na bu baax a baax ba amatul leen lañu wax jërëjëf Serigne Touba waaw ci loolu du ñu du ñu du ñu tëj te joxuñu kàddu gi sëñ Moustapha Lakaram muy ki nga xam ne ci moom la ñu jaar ba xam ki nga xam moo ñu jaay teena muy taalibe sëriñ Touba di taalibe sëñ Moustapha Lakaram moom vraiment di taalibe bu ñëpp ràññee ci yoon wi ñu jox ko mu wax ay kàddoom. alhamdulilahi rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente alayhi salaatu wasalaam di ñaanal sëriñ Muntaxa ibnu sëriñ Basiru Mbàkke suñu borom yàggal ko fi wéral ko wax dëgg fi di ko ñaanal kilifa diine kilifa aada yëpp di ko ñaanal suñu sëriñ suñu wasila suñu bunt sëñ Tuubaa muy sëñ Moussa Lakram Mbàkke di ko ñaanal mu gudd fan ak wér ci barke Cheikhul Khadim wax dëgg fi yàlla di rafetlu bu baax a baax liggéey bi nga xamante ni eh, def nañ ko fi ci njiitu jëwriñ Yankoba mi nga xam ne mooy président fédération bi tey ñu ñëw teewee premier pose première pierre bi fii ci dëkk bi nga xam ni mooy Merlo di Mariano Costa gi nga xam ne fi lañ jënd terrain kër sëñ Tuubaa gi muy bërëb boo xam ne ñun day miin nañ ko xam nañ ko ndax fii la ñu nekk waaw ñu ñaan yàlla nag ak yonent bi sëñ Touba niñ ko tàmbalee suñ borom dimbali ñu eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin sëñ Falloo ko ñaanoon muy Cheikh Ibrahima Khalil Mbacké moo ñu ko ñaanaloon kër sëñ Touba sëñ Falloo ko inauguré muy Serigne Abo ibnu Serigne Fadilou Mbacké muy loo xam ne lu wér péng la loolu lu baatine la loo xam ne sikki sàkk amatu ci léegi nag li ci des mooy terrain lañ wax waxaguñ kër terrain nag bu ñu ko waxee dafa am lu ci topp la ci topp mooy kër kër gi nag nañu def ba am terrain bi muy pas-pas ak ñaan ak nangu ko ko sëñ nangu ci njàmbaaru bu ñu góor góorloo mën na nañoo defar kër te du yàgg kon nañu gën a góorgóorlu rey suñu bopp suñ kéem kattan te xam ne nag ñu ngi soog a tàmbali maanaam bu doon cent pour cent nañ ne un pour cent wala deux pour cent moo taxaw ndax terrain rek la la koy tabax nag moo ci ëpp solo kon na taalibe yi pas-pasu taxaw ngir liggéeyal Serigne Touba. ndax liggéey sëñ tubaa weesuwul ñëw fi ci dëkk bi nga xamante ni kenn xamu fi lu dul ay ay Touba ba fi dëkk ñu ñëw taxawal fi sëriñ Touba kër nga xam ne ci àdduna foo dem am na fa ba Argentine tey suñu borom dogal ko nga xam ne depuis 2008 ba léegi ñu ko fi sàkku dix ans après suñ borom taxawal ko tey kon nag war nañoo mën a góorgóorlu ba bu déwénee heure bi déwén fekk mu doon kër goo xam ne dañ koy filmer di ko wane ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ne nag fii moom ñëw fi jafewul ndax collectivo yi am na fi ku xamante ni yàlla dogal nga mën a ñëw fii boo wàccee Moreno di am collectif boobu la indi ba ci bunt bi soo wàccee melo muy 503 bi dina la indi ba ci buntu kër gi kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di jégalu kàddu yi bu lu ci dëng rek ñu ziyaare ko jégalu leen ko te barke borom Tuubaa ñu ngi leen siyaar bu baax salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu tarkalla waa waaw ci loolu loolu ñu ñu toftal ci kàddu yi sëñ sëñ Pape Soda Sow muy taalibe sëñ Bakki Madina moom it di jàmbaar ci ci taxaw ci murid yi di euh, représentant Touba ca kanam sëñ Pape Soro ñu jox la nga jox wax say kàddu ak li ci bis bi. auzubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taal yëpp tey wax alhamdulilahi rabi alamin ndax lu mat fukki at ñi ngi mébét mbir mi ba sunu borom suttal ko tey jii ba sëñ aboom sëñ fa ñëw teg xeeru xeer wi kon dañoo war a sant yàlla bu baax a baax te xam ni Serigne tubaa nungul na sunu liggéey ni ko sëñ la karam waxee sëñ Ibrahima Khalil moo ñu ñaanaloon kër gi ba suñu boroom ñu am ko tey xalifa sañ Fall noonu doon sëñ Fall ñëw fi tegal ñu xeer yi kon nañ sant yàlla bu baax a baax te it xam ni nag ñu ngi soog a commencé ndax jënd pàkk yomb na lool waaye nag tabax moo gën a jafe maa ngi soññ sama bopp di ko sooñu mbokki taalibe bi yëpp si doole sëriñ Fallu mi ko teg yal na sëriñ Fallu yombalun yëpp barkeb sëñ Fallu bañ dugg ko bisimilah ba ubbi ko si alhamdulilah rabbil barkeb sëñ Mbàkke Madina di soññ mbokki taalibe yëpp si Touba si kanam ndax kat kenn ku ne gis na ni ko sëñ Abo soññee biig Argentine di ko tàllal loxo waa Argentine gépp te xam ni Touba dafa war a ni war a mel ni Makka war a mel ni Madina di sant waa administration bi nga xam ne ñoo yore wàllu fédération bi mention mention spéciale ndax fu organisation jage ñoom la kon ñu ngi leen di delloo njugal tey ñaan sëñ Fallou teg leen loxo di sant waa Touba TV ndax àdduna bépp fi mu toll lu xew Argentine àdduna bépp nga koy gis te ginnaaw yàlla waa Touba TV ñoo ñu ko yombalal. kon nag yàlla na siiwee ni jumaay Touba siiwee Touba TV di sant sëñ Gora Seck bu baax jërë ngeen jëf alhamdulilah rabbil alamin waaw ci loolu muy loolu mu doon kàddu yu mujj yi ñu jox sëñ Moustapha Sarr moom mi nga xam ne moo fi teewal administration bi mu sànni ci kàddu tënk ko ñu ñu ñu ñaanalante tàggoo. trop. jërëjëf salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di siyaaraat baax a baax a baax di leen bëggee tey rafetlu kàddu yi bu baax yi fi jaar yëpp ci wàllu liggéey xam naa dañ koy tënk rek ci lu gàtt ndax comme liñ fi jaar yëpp wax nañ liñ fi war a wax yëpp xanaa di rafet lu liggéey bu baax a baax a baax tey sant mbokki taalibe yi di sant suñu jëwriñ yi nga xamante ni wax dëgg yàlla jiital nañ ñu ba pare faqastu luñ ñu lépp loo xamante ni nii rek maanaam bëgg nañ ko ci liggéey bi ñu ànd kook ñun ba mu rafet lool wax dëgg yàlla kon daal kàddu yi kàddu yi kàddu yi sant la rek ci wàllu administration di ñaan euh, li nga seen nii moom lañ fi sumb suñu borom may ñu kàttan ak xéewal ak wér buñ ko eggalee ak jàmm ba kër gi mu taxaw ci kàttanu sëriñ bi salaamaaleykum wa rahmatullah waaw kon noonu la waaw mu nekkoon kàddu yi cant ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp espace daal la nii espace sëñ Tuubaa waa ngi nii ñu ñaan yàlla matale ko ñu tawax ci lu rafet ci barke Seydina Mohamed yàlla na ko yàlla matal ci barke Seydina Mohamed waaw ay ci murit comme ni ko gars yi di waxee ay ci murit jërëjëf waay